أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ma ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu doomu ndey mbokk yi ñu ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi ba tey ñu nekk ci suratu nisa bi iznillahi tabaraka wa taala tey ñuy jël ñetti aaya aaya 51 aya 52 aya 53 man na tey ñu jël ñetti aaya 51 52 53 bismillahi ñetti aaya yi borom bi tabaraka wa taala mu ngi ci jàngal wujubul kufru bil jibti wa taaxut war gi nga xam ne war na ko weddi lépp loo xam ne dafa aju ci xërëm walla njabar walla ak mbuxaaba walla lépp loo xam ne dañ koy jaamu te du yàlla baat bii di aljibt walla at taaxut boroom xam-xam yi wuute nañ ci ci baat bi lu muy tekki wa qiila aljibt assaahir ñeen ñi ne jibt mooy njabar bi lugati alxabash ñooñu ne ci làkk éthiopie buñ la ne baatu taaxuut li muy tekki mooy njabarkat baatu jibt mooy njabarkat bu dee baat bi di taaxut nag ñu ne mooy alkaahin mooy buxaaba jëlee nañ ci ibnu abbas ak ubay ak jubayr ñu ne omar ibnul xataab nee na aljibt assixr Omar moom baatu jibt ni mu ko tekkee mooy mooy njabar as-sihr mu ne wa taaxuut as-shaytaan taaxuut mooy seytaane wa qaala Malik at-taaxuut maa ubida min dunillah imaam Malik moom bi muy firi baatu taaxuut nee na mooy lépp lu nu jaamu te du yàlla loolu taaxuut la wa qiila huma kullu ma ubida min dunillah aw mutaa fi maasiyatillah ñu ne ñoom ñaar ñooñu baatu jibt ak taaxut mooy lépp loo xam ne jaamu nan ko teddu yàlla wala nu topp ko teddu yàlla ci mooy yàlla ñu topp ko mooy topp goo xam ne mooy yàllaa ci nekk su boobaa dugg na ci baat boobu di jibt ak taaxut mu ne wa haza xasan wa huwa ma zakarnahu fi tafsir sëriñ bi nee na moom day baat boobu la jël ñaari baat yooyu la jël def ko ci téeréem bi ndax loolu mooy li ko convaincre ala kulli xaal ñu ñëm ñu bokk xam ne baatu jibt ak taaxut ismun tur la li kulli ma ubida min dunillah lépp loo xam ne dañ koo jaamu tur la woo xam ne utal nañ ko lépp lu nu jaamu te du yàlla wa kazalika attaaxut sa sawaun kaana sanamayni aw rajulayni baat boobu tamit di baatu taaxut moo xam xërëm la moo xam nit la lu mu ci mën a doon suñ la jaamoo même boo doon nit buñ la jaamoo xërëm nga suñ la toppee ci mooy yàlla xërëm nga loolu na leer képp ku bàyyi jaamu yàlla yi di la topp te toppuñ la ci ni yàlla santaane nan la topp dan la topp ci seeni bànneexi bakkan ak yow sa bànneexi bakkan di mooy yàlla yow léegi xërëm nga dugg nga ci baat bi loolu mooy lu njëkk lu ñuy jàng ci aaya bi mooy yàlla daf ñu sant ñu weddi képp koo xam ne dañ lay jaamu dañ laa war a weddi képp koo xam ne dañ lay topp ci mooy yàlla dañ laa war a weddi moo tax mu ne wujub al kufru bil jibti wa taaxut dafa war ci ab julit baat bii di baatu wujub li muy tekki mooy saa yoo déggee wujub mooy dafa war assalaa wujub am la julli dafa war wala warul dafa war koor dafa war wala warul dafa war soo déggee baatu wujub rek suñ la ko waxee mooy mbir mi dafa tegu sa kaw fal force la kon yàlla dafa farataal ci ñun ñu weddi képp ku ñuy jaamu yàlla daf ñu sant ñu weddi képp ku ñuy topp topp gi ànd ak mooy yàlla te nga nangu ko yàlla daf ñoo sant nan la weddi yow moomu ñaareel mooy bayaanu makril yahud wa gishihim wa annahum laa yatawarrawna anil gisti wal kasbi wa tadlil borom baa ñuy leeralal bayaan mu ñuy leeralal ci ay yi nekk sunu kanam pexe pexe yi yahuud yi di teg di tëral ak wor gi ñuy wor yàlla di ñu jàngal ne yahuud ba aduna di tàmbalee bay jeex du jóg ci wor du jóg ci fen du jóg ci teg ay yoon yoo xam ne ku ci jaar sànku ku ci jaar wuuteeg santaane yàlla loolu mooy pexe yahuud ba leen yàlla bindee ba fii nu nekk musuñoo deñ di war musuñoo deñ ci fen musuñoo deñ di teg ay plan ak ay éthique ak ay système yuy sànk jaami yàlla yi loo tax dëgg-dëgg mbokk jullit yi ñun jullit ñi tey duñu mën a rëcc duñu mën a jub duñu mën a baax li tax mooy dañoo wuuteeg alquran te alquran moom mooy feeñal pexe yi yahud yi di tëral addina bi tey di leen sànk du leen lu sori alquran ñàkk dégg alquran ñàkk jàng alquran wala sax kenn mun na ma ne non ñu ngi koy jàng d'accord naa waaye dégguñu ko alquran bi dégguñu ko comprendre ñu ko ñenn ci ñun luñ ko def teel a barkeelu ñenn ci ñun luñ ko def téere xërëm lu ci ut ay gàllaaj ak ay takk ak naan ak sangu ñenn ñi luñ ko def ñenn ñu nekk la leen arrangé ci téere bi lañ jël loolu yàlla naan afa tuminuuna bi baadil kitaab wa takfuruuna bi baad fama jazaau man yafalu zalika minkum illa xizyun fi lxayaati dunya wa yowma alqiyamati yuradduuna ila asaddi lazab yàlla nee na ndax téere bi ma leen indi da ngeen a bëgg a gëm lenn li bàyyi lenn bi mooy li ñu def tey ñun ñëpp li ñu arrangé ci téere bi leen jël li nga xam ne téere bi daf cee wuuteeg sunu bànneexi bakkan ñu teg ko fële du ñu bëgg sax ku ci wax adduna bi yëpp nag looloo fi nekk tey ba ci réew yi ngay dégg ñu naan dañuy àttewoo lislaam ba màkk dañoo gëm lu leen neex ci téere bi leneen lañ des ñu sànni ko fële waaw waaw fépp loolu ñun ñii loolu lañ def ñeneen ñëpp loolu lañ def gëm leen bàyyi leen looloo tax comme gëmuñu téere bi globalement duñ ko mën a comprendre globalement duñu mën a dëgg-dëgg teewlu aaya yi lan la yàlla di wax lan la yàlla bëgg looloo tax yahud yi chaque jour seeni pexe ak seeni tëralin ak seeni doxalin dinu alak puisque yàlla moo xam yahud yàllaa leen bind yàlla moo leen xam moo tax yàlla deleen sone leen ci alquran li taxoon yonent bi mën a mucc ci yahud yi mooy yonent bi da doon déglu yàlla yàlla di ko xamal yahud yi ñooy ñan lu nu teg yàlla teggi ko yàlla xamal ko ko lépp ba mu jeex yàlla xamal ko ci alquran kon ñun bu ñu ñëwee teg téere boobu de côté wala ñu tànn ci lenn lu nu neex leneen li ñu sànni ko lu muy tekki mooy dañuy alku dañuy sonn mais dañuy am problème ñetteel bi ñuy jëlee ci bind tey mooy imaan gëm gu ñu war a gëm ne gëm gu ñu war a gëm nangu gu ñu war a nangu imaan baadul yahud bil islam wa kufri aksarihim ma ilmihim bi sihati al islam wujudu al imanu bihi wa duxuli bihi mbokk yi bokk na ci li ñuy jàng tey war koo xam mooy lenn ci yahud yi nangu nañu lislaam balaa ñuy dee ñu dugg ci lislaam ñu tuub waaye li ëpp ci yahuud yi dañoo bañ lislaam li ëpp ci yahuud yi gëmuñu lislaam te biñ koy weddi leer na leen ne téere bii mooy dëgg diine ji mooy dëgg waaye ñu xam ko ba xam ne lii mooy dëgg ñu daal di koy sànni yàlla moo ñu ko wax yaarifunahu kama yaarifuna abnaahu ni ñu xamee yonent bi ni ñu xamee alquran ni ñu xamee diine moo raw sax ni ñu xamee seeni doom waaw leer na leen nañ ñi ne islaam mooy dëgg waaye iñaan ak soxor ak mbon gu ñu yàlla di wax waddu law takfuruun kama kafaru fa takunu sawa bëgg nañ ngeen weddi yéen comme ñoom nu ñu weddee ngeen yem waaw loolooy wax ji bëgg nañu yéen ngeen weddi yàlla comme ñoom ni ñu weddee yàlla ngeen yem kon mbokk yi suñu bëggee xam ci sunu dund fu ñuy teg sunu tànk kenn ku nekk ci ñun tegal alxuraan ci sa kanam ku teg alxuraan ci kanamam du réer ku teg alxuraan sa kanam sëgg ci di ko jàng di ko jéem a dégg wallahi doo sànku waaye ku ko teg wala nga jàpp ne am na beneen njub bu ma gën a gaaw a jubal bu dul alxuraan dangay alko dara waralul réew mi tey jullit yi alko ngeen gis woote yi bari caaxaan yi bari bis bu nekk événement bis bu nekk kër gu nekk mbooloo mu nekk daanaka Sénégal moom xool ba ci chrétien yi suba ginnaaw suba la ñuy feetu lan la ñuy wax papa ngin Mariama moo fa feeñ parce que xam ne jullit yi loolu lañ gëm jullit yi feeñ lañ gëm rek feeñ moo tax ñoom tamit ñu keree seen feeñ ah kenn du leen weddi boo leen ne Mariama feeñu ñu ne la ah yéen tamit feeñu leen de ndax bis mu nekk seen sëriñ yi feeñ ci feeñ fee feeñ ci photo yi feeñ ci miir yi dama sama école benn classe su sixième élève boo xam ne sept ans la am dañu xëy suba rek yaay ju indi ko ñu ngi band loxo bi baar benn baaraam bi ci loxo bi ñu ngi ko band bandaas boo xam ne daanaka toll na ne kurpeñ xale bi sixième lay def ñu ne yaay ji lan la mu ne kii démb ci guddi tuuti mu dee déggu leen fiñ mi lu fa xewoon ñu ne ko lan la mu ne ñu ne sëriñ boobu dafa feeñ ci biir kër gi ci saal bi gaa yi di buuxante di buuxante ba miiru kër gi daanu xale bi ñu tànc ko ci bunt ba bunt ba baaraam bi xar demee noonu ci benn sëriñ bu ne dafa feeñ ci biir saal bi noonu ñuy waxee kooku feeñ na ci saal bi foofu noonu la ñuy waxee keneen feeñ na fële ci benn miir gis nañ keneen feeg ci garab gis nañ fële kele di naaw ñu gis kee kee di féey ñu gis kee di bumax géej ñu gis kee kee di dàq jant bi kee di naawal weer wi kee di dóor malaaka yi ay kurpeñ ruu yi malaaka yi nit ñi dee woon yépp seen ruu yi ñëwaat duggaat ci nit ñi dee nit ñi dee ñi dekk mu ne man kenn du rey sama taalibe te tàggu woo ma nga dégg gaa yi yuuxu est-ce que ak di yuuxu tëtëtëtë loolu ngay dégg Sénégal ku nekk di jay kilifa bi mu àndal di ko jay comme li comme li yahudi doon def rek ndeysaan loolu moo ñu indil problème loolu moo ñu sànq ñu soodi téere yàlla bi am na ñoo xam ne tey ndeysaan boo leen di jàngal alxuraan wala nga leen di waar ngay wax alxuraan ah seen conférence bi neexu ki ngeen fi indi yàlla rek la doon wax yàlla yàlla yàlla yàlla fii boo bëggee affaire yi neex ah kii boole ñoom diw de loolu lay wax loolu lañ lay wax ndeysaan waaw yàlla doy ab jullit bu ko yàlla doy lu koy doy su la yàlla doyatu ñu ne la yàlla nee na doyu la loolu moo lay doyal ci àdduna yàlla su feesul sa bët kan mooy feesati sa bët ndeysaan waaye nag noonu la mun a mel quand même noonu la mun a mel noonu la mun a mel noonu la mun a mel ndax bari gi nekk ci alxuraan yëpp yàlla ne baaxul walakin aksara annaas laa yaaqiluun wa maa yumin aksarahum billah illa wa hum mushrikuun maanaam kasir lu bari nga ngeen dégg bari waaye boobu ngeen dégg yëpp yàlla def ko dàq kon bu nu bañee sànku nañ teg alxuraan sunu kaw sunu kanam nañ ci sëpp sunuy bët suñu alxuraan digalee ñu def bu nu tere ñu bàyyi bu ñu joxoñee ñu topp bu nu teree ñu bàyyi loo fekk ci alxuraan jëfeel loo fekkul ci alxuraan baal bul ko jege même su yàlla defoon nga gis loolu ñu lay wax mu nekk nii jëhran sa kanam bum la jommal du dara pënd ak poussière la maadaama nekkul ci sa téere yàlla bii na nga xam ne loolu nekkatul sharia na nga xam ne loolu nekkatul diine gëm koo ñàkk koo gëm du la jëriñ tus benn waay wàccoon fii léegi xëcc weer wi wàcce ko ba ci suuf ne laal leen ñu laal ko warul tax ñu topp ko ndax loolu mu def amatul lum nuy yokk amatul lum nuy wàññi ci sunu diine ñun sunu diine mat na ba pare képp ku gëm ne diine jii am na ku ci war a yokk dara wala am na ku ci war a wàññi booy dee dem safara képp ku gëm ne diine ji dafa manqué woon diw moo ko mottali safara nga jëm parce que da ngaa fenal yonent bi képp ku gëm ne yonent bi dafa am lu mu nëbb diw moo ko indi boo dee di nga lay ak yonent bi ndax yonent bi bu mu ajee aj gu mujj mu taxaw ci arafaat ci naaj bu tàng ba ba mu waxee ba saaba yi dégg dafa ne ala hal ballaghtu ndax matal naa sahabayne na mu ne allahumma fashad yàlla seedeel aaya daa di wàcc alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa radaytu lakum alislaama diinan yàlla ne tey matal naa lépp mat na kon yi amatul yokk moo tax mu ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad wa fi riwaya man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu bu yeboo loolu dugg suñu bopp yi kon ñetti aaya yi mooy yi ñu war a jël tey bi iznillahi tabaraka wa taala maa ngi jégglu nag sama baat bi ndax tey moom dama dama leen a ragal rek moo tax ma ñëw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا borom bi nee na alam tara ndeysaan xoolal te yéemu yow Muhammad alayhi salaatu wasalaam alam tara xanaa gisoo ah kay xoolal xool goo xam ne daf lay ànd ak waar ak yéem ndax kat chaque jour lu warul am su amee fa mu am nit ñi dañuy jaaxle moo tax yenn saa yi boo déggee par exemple nga dégg ñu ne benn imaam dañ ko jàpp muy def dara lan mooy tax baat boobu ñu wax imaam wala ustaaz wala sëriñ ñu ne dañ ko gis mu def loo xam ne warul def loolu moo tax muy rëy ci nit ñi parce que dafa warul woon nekk mooy lii yàlla dina wax yenn saa yi yàlla indil ñu ci alquran loo xam ne dégg gi nga koy dégg wala wax gi mu la koy wax da nga ciy jël dégg xam ak waaru da nga ciy jële yéemu yéeme ak waar mooy lii ñekk sunu kanam tey alam tara xanaa gisoo ah kay gis nga ba tàyyi ila lazina ci gaa yi nga xam ne uutu dañ leen a jox nasiban cër minal kitaabi ci téere bi waa ji daa jàng ba ne ar yenu téere yi ba mu ne guj téere boo bëgg mu jàngal la ko tafsir boo bëgg mu ne la xam naa ko hadis boo yëkkati mu eggali ko waaye waa jooju kat yuminuuna bil jibti dafa gëm xërëm loolu leer na de loolu ñaata la ci Sénégal koo xam ni ponkal la dafa jàng soo waxee ñu ne moom xam nga ne yow kii moo la raw de moo da nga xam dara waaye yow toppal fële waay yow waaye waa jooju ñuy wax ngandum maamu buxaaba la wala dafa gëm buxaaba dafa gëm njabar dafa gëm xarfa fuufa dañ koy gis mu ngi takk ay lam mu ngi takk ay xaaw mu ngi takk ay bij mu këram sax dafa am xàmb mbokk yi mu ne aaya bi nekk sunu kanam ruwiya anna jamaa min al yahud minhum Kaab ibnul Ashraf wa Huyay ibnul ibn bun Akhtab zaabu ila Makk nee na jële nañ ci benn mbooloo yahuud mbooloo boobu bokkoon na ci délégation bi Kaab ak Huyay nee na dem nañ Makk pour délégation bu leen waa Mak Medina yónni woon ñu dem Mak pour dajale regrouper ay mbooloo yu doon xeex yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci bisu ahzab kon loolu ngeen dégg ci saar alquran suñ ne suratul ahzab yéen ngeen traduit ko ci seen traduction français les coalisés muy groupe yooyu gars yi doon groupe pour dal ci kaw yonent bi loolu moo am te ah ah yenn saa yi ma seetaan télé comme démb ma gis ñu ne les les avions de coalisation à bombarder quelque part loolu rek moo am tey àdduna bi gars yi dañuy batay rek gis nga ñooñu seen maam yi daje woon ahzab di xeex ak yonent bi ñoom la fi seen maam yi nekk ba seen sët yi nekk ba tey di xeex islam partout ci àddina bi islam moom warul wax waaye billahi wallahi wa taalahi bu yeboo ku mun a nekk da ngaa ñuul da ngaa xees américain nga tubaab nga fo bu yeboo ñu noppalu jant bi yonent bi waxoon ne islam bi day dem kenn mënu ci dara ci lañ toll su jullit ñi yëngatoo bu ñu yëngatuwul wallahi wallahi islam bi day dem kenn mënu ci dërëm ci jamono boobu lañ toll nii dañuy rey di lakk di pendre di duur ay bomb dara islam day taxaw waxtu woowu moo jot loo moo tax gis ngeen fu partout safara saa ngi tàkk xalij barki démb iraq la woon iraq jeex afghanistan moo njëkk afghanistan jeex iraq jël iraq jeex ñu dëggu syrie syrie jeex ñu songu égypte ah tey ñoo ngi yemen bis bu nekk nga gis bomb yaa ngi wadd ci kaw jullit yi ñu dërëm ndax yeneen bi moo ko waxoon am na benn mbooloo moo xam ne ñoo ngi fi ba keroog masihu dajjal di ñëw imaamul mahdi di ñëw di waxuma seen mahdi nag waxuma seen mahdi de bi ngeen dégg fan yi waxuma boobu mahdi bu yonent bi bu islaam laa wax Sénégal ñu gën dëgër fit ci àdduna bi ñoom am nañ lu nekk li arab yi ñemewul wax sax da ngay dégg sénégalais yi ñoo koy wax ñun lu ne lañ am loo xam ne doo gis benn dëkk arab bu ko ñeme wax wala àdduna bi ñun am nañ ndoxum zam-zam ah almadi ñooy almahdi almadi ah moo lu ne ngay dégg man barki démb dama tuuti ñu dóor ma xam naa ne xam naa ne waa ji daf maa ñemewul rek ma dégg ndaw si mu ne gis nga ndox mii mooy ndoxum zam-zam ma ca màkka ndax fii lay nekk waaye bu aj bi jotee rek mu dem du ma tiit ma ne astaxfirullah ci oto bi ñëpp siggi na ma nii mais loolu dafa ëpp nan lañ mën a waxee yonent bi dafa ñëw Sénégal nekk fi ci benn xawma xuntu Milan loolu bu dee dëgg la fan la ko yàlla wax ci alxuraan loolu mooy wax bi d'accord nañ léegi yonent bi dee bi mu faatoo dafa làqu faatuwul dafa làqu jóge Màkk jóge Médine ñëw Sénégal léegi ana aaya bi bu muy wax ne man yàlla ne man maa ko indi foofu ana aaya bi ana hadis bi voilà bu ñu bëggee ñu gëm ko nan nan ko alxuraan wax nan ko hadis jàngar rek jeex na mais nekk fii ay jaaxaan yoo xam ne yonent bi moo kii woon fële ñëw fii tey ah ndeysaan lay ku jàngul laa yërëm bu ngeen jàngulee toog fii di ñëw samedi bu nekk rek tafsir ñibbi du ngeen jàng un jour viendra ngeen dem dugg ci yooyu julli day jàng de soo jàngu rek ñu nax la ku jàngul ñu tafu la gis nga gars yi ni ñuy tafee portable yeeg kalfe yi am na fi ñoo xamante ne ay agresseur u pas-pas lañ te ku ñu agressé sa pas-pas ñu tafu la sa pas-pas ñu ne ko tif sa imaan ñu yóbbu ko pare nga safara nga jëm waaw am na fi ñuy tafu pas-pas waaw chaque jour nga dégg Sénégal woote bu bees ay mbooloo yu bees ay tarixa yu bees wootekat yu bees saa yoo seetaanee télé bi rek di nga gis ku bees yooyu nii ne kii temps yi kii moo xew temps yi nit ñi daw dem foofu parce que nit ñi jànguñ benn waaye doon wax sénégalais yi seen bopp yi suuf su nangu la loo ci ji mu sax xam ngeen suuf su nangu xam ngeen suuf su nangu maanaam tool boo xam ne suuf si loo fa ji mu sax boo indi woon xaalis nga ji ko sax mu sax mooy bopp sénégalais yi loo leen wax rek nga dégg ñu ne waaw waaw mun naa ne kay mun naa ne bul weddi bul weddi xam nga yow gis nga lii moo tax yéen ngeen di alku di la jéem a terrori terroriser ah waaw fekk waa joo xam ne li mu wax dara amu ci leer na lu du dëgg nga bu ko weddi wala ñu ne waa ji yow li nga wax du dëgg déedéet yow mi di ko weddi la ñuy wax gis nga yow bàyyi leen diingat ngeen di xëy rek seen gémmiñ ñu tourné xamuleen li ngeen di kii fekk dara amu ci du dëgg li yàlla doon wax wax na ko ba pare mu ngi nii dootu ko waxaat li doon dagan dagan na ba pare jeex na leneen dootul araamaat dootul daganaat yonent bi doon wàcc jeex na yàlla tëj nañ ko maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa xaatama nabiyin yàlla nee na yonent yàlla nee na yonent bi moo tëj buntu yonent bi xam ngeen xaatam mooy lan ci arab yéen i jàng arab bu ngeen jàng arab ngeen ne xaatamun mooy lan mooy jaaro xam nga ko ñu xaatam mooy dafa tëju mooy lu ñu kaste xatm moom la ñuy tuddee sax kase mooy xatm xaatamun mooy jaaro yàlla mu ne yonent bi xaataman nabiyin moo tëj buntu yonent yi yonent bi ne laa nabiya baadi yonent du ñëw sama ginnaaw waaw léegi comme ñeme bu ñoo wax yonent bi yonent beneen moo ñëw léegi dañ déedéet déedéet ñun waxuñu ne beneen yonent dafa ñëw dañu ne moom moo ñëwaat lu mu fi wut bu ñëwaatee lu mu fi wut ah kon xanaa li yàlla li dañu dañ bëgg a weddi yàlla yàlla mu ne ku génn àdduna bi dootoo fi ñëwaat benn saxaaba dafa xeex jihaad ñu rey ko ndeysaan rey biñ ko rey dafa métti saxaaba yi ne pap ne doomam sa papa dafa xaru moo ko tey gis ju fukki yéeféet mu songule nag jaaseem xamoon na ne dañ koy rey moo ko tey dafa xaru nga loolu gars yi di wax fii waa ji ah kii day xaru rek li muy wax nii day xaru rek moo ko tey loolu la saxaaba bi defoon gis fukki yéeféer mu dugg leen ngay rey ko saxaaba yi ne dafa xaru doom ji dégg ko ñëw ci yonent bi ne dégg nga lu ñu wax sama pap yonent ne wallahi xamuloo sax sa papa li mu am yàlla mësta wax ak nit lu dul mu am entreprise wala mu am hijab kiiraay lu dul sa pap sa papa bi mu faatoo yàlla dafa jàkkaar ak moom face à face ne ko waxal loo bëgg ma defal la mu ne ko nga delloo ma àdduna ma xeexaat nga delloo ma àdduna ma xeexaat ah mbokk yi xoolal ku yàlla feeñoo ne la loo bëgg bu doon kenn ci ñu la daan 4-4 8-8 limousine palais da nga ne benn américaine parce que ñun àdduna moo nekk suñu yun wala saxaaba boobu yàlla ne ko waxal loo bëgg mu ne ko nga delloo ma sama ruu ma delluwaat àdduna ma gàdduwaat sama jaasi ma xeexaat ñu rey ma nga laajaat ma loo bëgg man la nga yóbbuwaat ma ma xeex ñu rey ma yàlla ne ko waxoon naa ko loolu mënatul nekk innakum ilayha la taudun ku génn àdduna mënatoo faa dellu amul loolu amul mënul nekk kon naka la ñuy waxee yonent bi génn àdduna ñëwaat beneen mooy yonent bi naka lay bàyyee màkka problème entre chi ak sunni waa këram ñu posone Assane rey Ousseynou jàpp leen bisu Karbala mu toog fii ci ay xuntu ñuy rey waa këram du dem régler ko muy ñëw fii Sénégal di fi toog bàyyi waa këram ñu leen di rey fële loolu xel nangu na ah mu ñëw toog fii ñuy rey waa këram loo xel nangu na ko ok waa këram nañ ko dañ koy bàyyi wala waaw commissaire bu toogoon fii nu dégg waa këram ñu ngi leen di dóor Dakar nu muy def danaan waaw garaawul quoi dóor leen leen wala day taal oto bi dem waaw day ñëw te buy ñëw arme bu muy indaale kon waaw kon yi- am na yoo xam ne jarut a gëm ku ko gëmit da ngaa utilisé sa xel rek loolu Yunus naan dañ laa tafu sa xel waaye boo amee xel xool semaine bi passé rek dañu yóbbu comme tey dama demoon Lac Rose mais samedi passé bële ci kaw maa ngi demoon aan sunu benn élève jardin boo xam ne demoon na mu gis gaynde yi mu xool rabu àll yi mu ñibbisi mu ñëw seen kër trois jours rek mu gis télé bi teg benn film Mickey benn gaynde buy wax xam nga Mickey rabu àll yi dañuy wax ah gaynde bi di wax xale bi de ñetti at la mu ne rakkam ñii dañuy fen de gaynde du wax gis naa ko mu ngi aan ñii dañuy fen parce que xale bi utilisé na xelam xale bi moom tëjul xelam gis nga moom dafa li ñu ko doon won fële gis na gaynde mu ne rakk ji gis naa gaynde de ñii dañuy fen man dem naa ba aan gis naa gaynde gaynde du wax xale bu am ñetti at parce que joxewul xelam moom bu doon xale bu joxe xelam na ne gaynde la kay day wax gis naa ko aan muy wax mu ne ma na nga def ma ne ko maa ngi fi rek waaw mais xale bi moom joxewul xelam waaw moo tax nit ñi nag dañoo joxe seen xel moo tax lu nekk ñu gëm ko luñ leen wax rek ñu gëm ko loo leen wax ñu gëm ko billaahi wallaahi taala loo wax sénégalais yi ñu gëm ko parce que seen xel lañ dul def ci seeni bopp mbokk jullit yi nee na mbooloo mi dem nañ wàcc màkka indi yéeféer yi di wax waa quraysh nasaluhum fa innahum ahlul kitab ala diinina wa diini muhammad waaw nañu laaj waa quraysh ñun yahuud yi dañoo am diine yonent yàlla muhammad am diine nañ ko laaj ayuhuma xayr sunu diine moo gën wala diine muhammad moo gën bañ ko laajee waa quraysh comme waa quraysh dañoo bañ yonent bi bañ lislaam fa qaalu lahum diinukum xayrun min diini muhammad wa antum ahda minhu wa mimman ittabaahu fa anzala allahu hadihi al aya yéen de seen diine moo gën diine muhammad yoon wi ngeen topp moo gën a baax yoon wi muhammad indi muhammad ak ñi ko topp nekkuñ ci dara yàlla daal di wàcc aaya bi kon aaya bi loolu mooy sababam yi tax yàlla xas yahuud yi mooy uutu nasiban min alkitab yàlla daf leen joxoon cër ci xam-xam ci téere bu tudd tawraat bi leen yàlla joxe xam-xam ñu xam dëgg-dëgg jàng xam lislaam mooy dëgg alxuraan mooy dëgg waa Quraysh laaj leen ñoom ñu dem di laaj waa Quraysh waa Quraysh naan leen xam ngeen ni yéen li ngeen nekk mooy dëgg te ñoom xam nañ bu baax a baax moo tax yàlla mu ne alam tara xoolal gaa yi nga xam ne alam tara xanaa gisoo ilal lazina jëm ci gaa yi nga xam ne uutu joxoon nañ leen nasiban cër cër mooy lan benn part benn paar benn wàll minal kitaab yi ci téere bi di tawraat waaye day lañuy am xam-xam yëpp terewul yuminu na dañoo gëm bil jibti ci xërëm ci njabar wa taaxuut ak xërëm yuminu na dañoo gëm bil jibt ci lépp lu ñu jaamu te du yàlla wa taaxuut ak lépp loo xam ne dañ koo topp te du yàlla yemuñ ci sax ñu jox leen xam-xam ba pare ñu nekk ay njabarkati ki bu xaawa wala Sénégal da nga fi gis kilifa diine gu mag a mag a mag a mag fekk njabarkat la yenn saa yi nga gis imaam boo xam ne njabarkat la ngandum maami imaam fekk bu xaaba bu mag la waaw sénégalais moom yàllaa koy dimbali rek pour du nekk njabarkat pour du gëm njabar yàlla lay dimbali parce que réew mi yëpp njabar laak ay gàllaaj ak ay buxaabaak ay maaman ak seetkat ak gisaan ak xoolal télé yi xoolal télé yi télé bu nekk am nga seetkat wala d'accord ngeen wala am na sax rajo boo xam ne moom amul liggéey lu dul seet rajo baa ngi Liberté 6 rajo bi seet rek seet kese borom rajo bi sax seetkat la de jërëjëf su la yàlla su la yàlla nattu woon nag ba nga dem foofu ba nga gis seetkat yi billaahi da ngay xam ne nit ñee alku nit ñee bon seetkat bu la ci gën a torox ci ñuul gi mu ñuul sew gi mu sew comme bantu bale yére yu muy sol torox gi mu torox ñàkk fayda ñàkk personnalité billahi wallahi su la ci yàlla wonoon kenn ci ñoom li nga xam ne ñii du ñu dara waaye nag xam nga nit ñi waaw nga nit ñi ñooñu la ñuy gëm ndeysaan te ab jullit du gëm seetkat moo tax alxuraan di ñu tere loolu surtout nag koo xam ne yàlla daf laa jox xam-xam nga bàyyi fi xam-xam bi ñukk dem di gëm ay buxaabaaki ay sindaxa ki golo mu ne yemuñ ci gëm xërëm ak njabar waaye wa yaquula ñu ngi naan lillazina kafaru ñu ngay wax yéeféer ya haula i ñii ahda ñoo gën a jub min allazina amanu ñu gëm yàlla sabilan yoon gis nga de allahu akbar wa yaquluna ña nga naan lillazina kafaru ña ngay wax yéeféeri màkk ñooñu nga xam ne ay caaxaankat lañ waa Quraysh nga xam ne ay bandi lañ wa hum mushrikuuna Quraysh diinukum xayrun min diini Muhammad wa antum ahda tariqan fi xayaatikum addunyawiya wal ijtimaiya waaw yéen de xanaa xamuleen ne Muhammad li mu indi lu dara yéen sax ni ngeen di dundee seen système mu dundin moo gën a baax système mu dundinu yonent yàlla mu am loolu moo am tey Sénégal gii lan moo tax Sénégal yegg si fii c'est parce que tubaab yi dañoo gëmloo woon ñi fi nekk ne diine day tardeel nit surtout l'islam mu ne nit ñëpp daw diine def seen doom yi dem jox leen tubaab yi tey ñooñu tubaab yi yaroon ñoo ñu indil ay problème demoon nañ fi ba boo xëyee waxo asalaamualeykum wala waxo bonjour dañu ne kii bokkul boo karwaatuwul bokkoo boo sollu yëre tubaab bokkoo foog nga karwaatu bonjour kii di di wan na ay er tey moo ngi nii jàppoon nañ ne lislaam kenn mënu ko dund fekk jàmm ji indil nit ñi jàmm ci kaw suuf yàlla loolu la wax moom la indi waaye tubaab yi gën ñoo ne lislaam day tardeel ay nit tey tubaab yi li bokk na ci li ñu naxe nit ñi mooy gëmloo nit ñi ne islaam yépp terroriste la terrorisme la lislaam baaxul moo tax loolu ngeen di gis ci ay sir sir ibdo xaw ma saaral ibdo nangam ak nangam ak lu nekk ñu koy def ay caaxaan yoo xam ne di jéem a nax jullit yi waaye tubaab yi ñoo la gën a leer ne wallahi bu nu bàyyi woon benn at ñu bàyyi l'islam gouverner adduna bi benn at la moo tax ñu coup d'état Mursi Égypte parce que xam ne ne day ja day daalale l'islam xoola fan yi xam nga lu ñu def atte ko ne dañ koy rey lu mu def ana ana ki ko jiitu woon kooku dañ ko tëj génne ko ne ko defoo dara te kooku li mu yàq dëkk ba kenn xamul nu mu toll ay at Mursi moom jiitewul sax at mais xam nañ ne programme l'islam la yor léegi lenn saa yi nag benn waay dégg ne dañooy rey jullit dañoo rey jullitu sàngam wala dañ koy rey mu defa ne loolu defet la déedéet jullit rey ko du defetam de ah jullit nga ni yàlla nee na ñu rey la loolu du defet de ku jàpp ne defet la rek jàngoo diine maanaam loolu ndam la lu tax yow da nga ñaan ci sa dund bay dund yàlla nga dee ci yoonu yàlla ñi gën ci àdduna bi yëpp ci yoonu yàlla lan leen rey wala wala li gën a rëy ci daraja bu jullit am mooy al mawtu fi sabilillah boobu bokkul ak dee sa kaw lal de boobu bokkul ak dee hôpital de déedéet ku dee ci yoonu yàlla sax yéen xam ngeen kenn du la sàng kenn du la sàng dañ lay jullee kese daal di dugal ci pax mi yowmal qiyam boo dekkee bu fekkee sa yaram bi danoon necc nacc deret jooju mooy gën a neex parfum misk ndeysaan moo tax bu leen jàpp mukk ci àdduna wala taxsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahyaun inda rabbihim yurzaquun farihina bima ataahum allahu min fadli allahu akbar leen jàpp mukk ñi ñu rey ci yoon yàlla dañoo perte yàlla mu ne deewuñ de ña ngay dund ña ngay noos jàngeen suratu yaasin waa ji gaa yi reyoon ñu defa ne jeex na waa ji nekk biir aljanna di jibile lan la doon wax yaa layta qawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jaalani min almukramin allahu akbar gaa yi dafa ne jeex na waa jaa ngay yuuxu aljanna di yuuxu naan ak a neexoon yéen da ngeen yaakaaroon ne rey ngeen ma ay waroon ngeen maa gis tey fi ma nekk kon rey rey jullit bul yaakaar ne jeex na beneen mooy xoolal xoolal yonent yi wala ñi doon défendre diine wala ñiy défendre diine ñu leen di rey boobu ba léegi ndax jeex na chaque jour boo reyee kenn rek keneen ñëw wala bal ñeneen ñëw chaque jour bu ñu reyee ñeneen ñëw parce que yàlla moo yor programme bi du nit ñi beneen bi mooy yàlla day daf ñuy testé ñun ñoo ne dañoo gëm yàlla ñun ñoo ne dañu gëm yonent bi ñun ñoo ne dañoo bëgg a dee ci yoonu yàlla foog yàlla mu ne ma xool ko alif lam mim ahasiba nnas an yutraku an yaqulu amanna wa hum wa laqad fatanna alladina min qablihim fala yalamanna allahu alladina sadaqu wala yalamanna allahu alkazibin léeg-léeg nga ni dama gëm yàlla yàlla mu ne dëgg la nga ne waaw ñu jàppale tëj ci kaso ne dañ lay rey ñuy seet ndax da ngay saalit wala te gars yi dañoo muus gis nga bala ñu lay rey dañ lay yónnee ay nit la yow waaye li ngay def bàyyi lii weddi lii daa ñu jox la dara nga bàyyi li ngay wax boo génnoon tey ah tël la fii benn kër ci wetu géej gi jox la kat kat du moo gën nga nekk fii ñu su fekkee ne àdduna nga gëm nga ni waaw waaw man kay maa ngi jéggulu maa ngi jéggulu rek man maa juum ñu daal lay libéré xam ne yow caaxaankat bu mag nga gëmoo tus allahu akbar jàngeen sayit xut keroog bañ koy rey dañ koy yónnee nit ñooñu bal sax rakkam bu jigéen ñëw na ci moom ne ko tee ngaa bàyyi président bi sax da ko ne boo jégguloo rek ma baal la dañ lay génne télé rek nga ni man dama juum maa ngi jéggulu ñu bàyyi la mu ne leen déedéet su fekkee ne man dama doon wax li may wax dëgg la jéggaluwuma benn baat ndax li ma doon wax dëgg la dëgg la su fekkente ne yéen da ngeen maa bëgg a rey rey leen ma rek mais kay amul ne man may deltu ginnaaw ñu ne ko léegi kon waxal léegi li nga doon wax lépp du dëgg ñu fal la ministre mu ne sama loxo bii di taaya di wax ashhadu an la ilaha illallah du jàpp big ci état laïque di ko signé moo tax yenn saa yi nga dégg ñenn ñi ne saytu xurba pas-pasam wérul ku pas-pasam wérul dina wax loolu sama loxo du jël big di ko signeel état laïque maanaam man du ma liggéey ci état laïque di leen signeel mukk parce que sama loxo bi mu ngi wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah maa ngi koy wax bu dégg bëccëg baaraam bi di jàpp big bi loolu lay wax kon baaraam bi warul wax ashhadu an la ilaha illallah ba pare di signé ci état laïque ñu daal di koy jàpp daal di koy rey ñu takk buum ci baat bi rey ko bu ba léegi yaakaaroon nañu mbir mi jeex na mais ba tey mbir maa ngi am kon rey nit jël kenn rey ko bu kenn yaakaar ne loolu defet la wala déedéet bal teraanga la bu yàlla yëkkati waa jooju ndax yàlla yàlla subhanahu wa taala waxoon na ci quran ne rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi ñii li ñu waxoon dëgg la ñoom yàlla fekk na ci ñoom loolu dëgg la mu ne gaay nee nañ haula i ñii ñoo gën a jub ahda min allazina amanu sabilan man allazina amanu fi hadhihi al-aya ashaabu muhammad ñii de ñoo gën a jub way gëm yàlla yi yoon mooy yenn saa yi nga ni nga dégg ku ne gis ngeen nangam nangam système yi ñu indi lan moo tax tey nit ñi bàyyi islam daal di topp ay système laïcité bi ñu topp ñun julliti Sénégal lan moo tax ñu topp laïcité bi c'est parce que dañoo gëm ne laïcité moo gëm l'islam moo gën l'islam loolu moo tax ñu bàyyi l'islam loolu mooy lii aaya bi di wax gëm ne ñeneen la ñu indi moo gën allazina amanu li ñu topp li ñu indi moo gën li yonent yàlla muhammad indi te bu ngeen jàngee nawaaxidul islaam yi yàq islaam di ngeen fa fekk képp ku gëm ne am na beneen njub bu gën a jub njubal muhammad fa huwa kaafirun wala amul ci nawaaxidul islaam am na colaamu ci képp ku gëm ne am na keneen ku fi indi lu baax lu gën lu muhammad indi loon kooku yéeféer la loolu dafa am ci nawaqidul islam yàlla mu ne ulaayika ñii nga xam ne dañoo gëm leneen lu dul islaam ba pare jàpp ne looloo gën lislaam allazina ñooy ñi nga xam ne laanahumullah yàlla rëbb na leen yàlla soril na leen yërmandeem allahu akbar ñii yàlla alak na leen ñan ñi nga xam ne dañoo jàpp am na leneen lu gëm lislaam am na leneen lu gën a baax njubal muhammad ulaayika ñooñu jàpp loolu allazina ñooy ñi nga xam ne laanahumullahu yàlla rëbb na leen wa man yalaanillahu képp ku yàlla rëbb falan tajida lahu nasiran kenn du am ku ko dimbali ku yàlla rëbb pare nga kenn dootu la dimbali kenn mënatu laa baaxal allahu akbar billaay looloy dëgg ku yàlla rëbb mbokk yi lan ngeen xam ci moom li waa ji waxoon mu dem yend ji benn kër ñu teg añ bi mu xool bool bi balaa ñuy lekk mu gis ñu meesu kese ñoo toog mu ne suur naa ñu ne ko lu tax lekkoo mu ne man duma lekkandoo ku yàlla rëbb duma lekkandoo ak ku yàlla rëbb jigéen ñi ne ko ah ñun yàlla dañoo rëbb mu ne waaw ndax yonent bi nee na laana allahu alwasila wal mustawsila yal na yàlla soril yërmande ku yokk kawaram ak ko yokk mu ne man du ma posone sama bopp ndeysaan mu ne yéen lekkandoog yéen day rey xol ndax seen loxo yi poson bi ciy wàcc day tasaaroo ci ceeb bi su ma ko lekkee day rey sama xol sama ngëm bi lay rey ma ni man mbaadu loolu moo rey suñu xol yi ñun ñëpp lekkandoo toogandoo waxandoo waxtaanandoo reetaanandoo ak nit ñi nga xam ne yàlla da leen a rëbb mbaa du loolu moo tax ñun mënuñu am imaan ñooñu ngay bokkal oto ñooñu ngay bokkal ndékki ñooñu ngay bokkal añ ñooñu ngay bokkal reer ñooñu ngay bokkal liggéey ñooñu nga bokkal lal ñooñu nga bokkal ñooñu nga bokkal ñooñu nga bokkal ñooñu nga bokkal baa loolu moo tax du amatuñu ngëm baa loolu rey suñu xol yi yàlla nee na wa man yalanihum wa man yalanahumullah képp ku yàlla rëbb falan tajida lahu nasira doo am mukk mukk mukk ci àdduna ku koy dimbali waaye yéen sax am lahum ndax ñii dañoo am nasibun cër minal mulki ci nguur ndax ñoom nguuru yàlla gi dañ ci am benn parti boo xam ne ñoom ñoo ko moom bu fekkee ne loolu am na mu ne isan kon laa yaatuna nnaasa naqiira yàlla day moom nguuram mu ngi ciy joxe waaye bu dee ñii moom kon day seen nguur duñ ci joxe xam ngeen lan mooy naqiir mooy loolu di nekk ci saalu tàndarma yudrabu biha almasal fi sagari fi sigariha boo xare boo xoolee tàndarma boo ko xaree ci digg am na benn buum gu weex benn feuille bu weex bu lalu benn buum nekk ci loolu mooy naqiir waaw yàlla nee na ku am te doo maye lu tol noonu ku am laa wax te doo maye lu tol noonu comme bu la yàlla joxoon nga gouverner asamaan ak suuf ndax di nga joxe amuñu moo tax borom bi ne ndax ñoom dañoo am genn wàll am lahum nasib min al mulk ndax dañoo am cër ci nguur yàlla gi fa isan kon laa ya laa yatuuna annaas laa yutuuna annaas naqiira laysa lahum nasib amuñu benn cër min al mulki kama yadauna fal istimham lil inkar alayhim daawatun anna al mulk yu awilu alayhim jàpp na ñoom ñoom moom nguur gi yàlla dina leen ko jox fekk du benn dëgg amuñu benn cër bu leen yàlla cëraleel bañ koy tiitaroo ëllëg ci kaw jullit yi ne yàlla dina leen ko jox kon mbokk yi ci yàlla darsu tey fii la yam ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu njumte yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu amin ya boo amee ay laaj insha allah